naaw bu 28 noo jotee ànd teeg ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mii ak fu waay mënti nekk rek ci li ngay dund euh, yéem la lool lool lool ba nga ñàkk ci pexe 7TV dina la fa fekk ñu daal di lay dalal waxtaan ak yow daal di ciy jéem a wut solution à travers ñu ñuy seetaan ñu leen di nuyu baax a baax fu ñu mënti nekk. ba tax na tey jii may wax ak yéen ñi ngi fii ci fi nga xam ne rek mooy Grand Yoff ñëw euh, seet si suñu benn ndaw boo xam ne mu ngi tudd Bolle seen Bolle ne bu jàmbaar la ndax nag lañ naan li ñëpp wax mooy dëgg témoignage yooyu lañ fi fekk si kanam dinañ leen ko dégtal laata loolu dañ koy nuyu bu baax a baax waaye nag ñu wax leen tuuti rek ci li nga xam ne rek mooy ay souci xale la bu doon liggéey ci marché Grand Yoff bi nekkoon fi nag di liggéey euh, ci li nga xam ne rek mooy wàllu yennu li nga xam ne mooy euh, euh, camion yi décharge marchandise yi waaye balaa loolu day xëy dem chantier bu demee chantier ba ngoon mu wàcc ku dem chantier ba ñëw li ngay njëkk xalaat mooy noppalu moom xalaatu ko ndax xam na la ko war yëpp yëpp yëpp ba tax na bu jógee chantier la muy def mooy jubali marché directement di yennu maanaam liggéey bu taxawaalu rek te lu nit di def ànd ak li nga xam ne rek mooy ngor ak jub mu daal di koy jël ngir njaboot ak na ngir fameem doon benn doom ci ay waajuram euh, amoon loolu avenir ndax mi ngi ci doon génn bu baax a baax lépp lu ay waajuram bëggoon rek euh, ci li mu mën mi ngi ko doon def waaye nag ndog da koo dal euh, daa dem chantier yéeg ci benn auto citerne di wàcc ci échelle bi daal di daanu daanu boobu nag indil ko ay gàllankoor yu bëree bëri ñaari at a ngi mu tëdd di faju la mënoon mënatu ko li naan wér gu yaram bu taxawee te nga yor kër gi day taxaw ba tax na ñu ne tungu ne du teew ñuy nataat ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo moom boole seen euh, boole nuyu nañ la. Euh, ma bàyyi la rek euh, nga wax ñu li nga xam ne moom laa junj léegi ndax naam dañuy bàyyi yow nga expliquer naka nga ko dundee ak naka la demee nga doon ndaw nekkoon marché di liggéey. boo wàccee euh, chantier euh, ngay dem marché waaye suba si boo xëyee li ngay njëkkee def mooy fu chantier am rek boo xam ne mën nga fa liggéey nga daal dem fa euh, liggéey woon fële ca Pontiville ndog daal di la fay dal ma bàyyi la nga wax ñu naka la demee ginnaaw bi nga nuyoo ñi ñuy seetaan ba pare sur la 7 TV. bisimilah rahmaani rahiim commencé bisimilah rabbil alamin soxna Sow ñaan maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal. Mm. di nuyu sama grand nekk ci marché Grand Yoff ak ma Modou Faye sama nijaay mm. waaw léegi moom ma daree sànc ponti waaw ma xëyoon sànce mm-hmm. euh, dama bëggoon naan mm-hmm. après ma dem ci robinet bi mais dama fekk ñu balancé ci benn raakool mm-hmm. dugal ko ci oto bi léegi ci laa yéeg ma naan bu pare bi may wàcc boo jege suuf ci laa tarxiis ma ci bi nga yéeg ci loo yéeg échelle ci échelle bi waaw échelle xam nga set nday am échelle waaw waaw ma ci ësal bi mais bi may wàcc la tarxis daanu. Mhm. écarté. daanu fi nga daanu lan la suuf la wala dë. ban la ban ban. ah ban la dafa glissé ban la waaw dama glissé. Mhm. waaw ma tarxis mhm. mais bu tooy. bu fa tuuru quoi. waaw waaw ci la tarxis nag daanu. mais foofu ci tàng tàng bëgg bëgg bi nga daanoo noo def da toog. waaw dama toog écarté. Ah, ba sës. oh. waaw. Mm-hmm. après ci rajo yi ma jóg mais mënu ma jóg après ci sama gars yi ñëw jàppoo génn ma sànq bi dugal ma ci taxi yóbbu ma hôpital Dantec. Mm-hmm. mu bu ñu ëggee hôpital Dantec ñu ñëw expliqué médecin bi après ñu ñëw xool ma laaj ma ma wax leen nan laa daanoo. Mm-hmm. après ci la ñu jël yóbbu ma rajo ma rajo après ñu ne yow. sa yax bi moo fett. Hmm. waaw ñu ne yax bi dafa fett. yax bi fett. waaw ñu ne yax bi def fett. Hmm. léegi ñu dem jox ko médecin bi médecin bi ne seen rajo bi dafa leerul mais dangeen ko dem rajowaat. Hmm. ñu toog ba 16 heures ñu yóbbuwaat na. da nga waaw lépp waaw lépp ngay fay. waaw rajo bi ñu njëkk def leerul ba nga defaat da nga ko fay. waaw boobu dama fayaat. doy na wala mais bi ñu defaatee fet fet boobu gisatuñ ko. waaw gisatuñ ko. léegi ñu yóbbuwaat ko ministère bi ministère bi ne lii nu mu a demee nii mais bu tey di ngeen yóbbuwaat euh, boole kii rajo parce que ñaar rajo yëpp leerul bi dafa am fet-fet bi amul fet-fet mais di ngeen ko yóbbuwaat. Mhm. Ah, ci la ñu yóbbuwaat mais yooyu moom fayatuma sax. Mhm. yooyu fayoo waaw mooy yoon mooy yoon waaw vingt heures waaw. Mhm. léegi bi ñëwee nag lañ ne euh, médecin bi nee na dangay opéré yow. boobu troisième bi gis nañu fet-fet bi. non non troisième bi gisuñu fet-fet bi tey. gisuñu ko tamit bu njëkk bi rek moo am fet-fet quoi. waaw ñu ne léegi dangay ngay mais fekk na boobu woo naa sama papa sama mu ngi Jurbel dafa demoon waral foofu. Hmm. benn xale bu mu waroon waral foofu. waaw léegi mu ne ma après suba teel dinaa ñëw Dakar bul nangu opéré gul. Hmm. ma ne ko waa damay bàyyi ba nga ñëw. léegi suba teel sama papa egsi léegi médecin bi ñëw mu wax moom pare mu ne ko léegi boole yax bi dafa dam mais dañ koy opéré. xam nga rek parents àll yi ñoom xamuñ yooyu noonu. waaw waaw léegi sama papa ne ko noonu. dañuy ragal wàllu opération. voilà mhm. que moom euh, dafa am benn sëtam ko defoon. Mhm. mais dañ ko opéré mais mënatul dox. mënatul dox waaw mënatul dox yooyu lañ ciy ragal. voilà yooyu lañ ciy ragal waaw. dëgg la te aussi am. Mhm. man la am lañ am te kenn la. amuma yenn. boobu somme bi ñu la laaj bëriwuloon. non boobu sax ñoom ñoom waxaguñu somme. Mm-hmm. waaw boobu waxaguñ ma somme quoi. mais xalaat na opération mais xalaat ne amaana peut mu cher. waaw parce que euh, ki ñu opéré noonu mënatul dox dépassé nañ ci 2 millions 100 mille. Hmm? hôpital Cité woo waaw te mu ngi nii doxatul. te doxul doxul waaw. Mm-hmm. seetam la ñoo bokk benn dëkk. dëgg la waaw ci la sama ne non kii doo euh, da nga may bàyyi ak moom na ku ma yaakaar ne fu mu ko demee mm-hmm. ko non te nga bàyyi ñu opéré ko rek mu ne non parce que. Euh, li ngeen may laaj duma ko am te aussi opération bi daal wóoluwuma ko. su ma mhm. bon su ma daal ngeen may ma suma doom la ma yóbbu ko fi ma yaakaar ne su ma paree moom faju ci lañ ma bàyyi sama papa yóbbu ma fii dem village yoon bi métti woon na wala boobu am euh, douleur bi deful noonu. ci non non mais mais mais teewul fex naa ba toog noo xam ne maanaam du du tax mu métti noonu quoi. doon nga dox. non non non ba nga daanoo ba tey doxoo. non non ba léegi dox ma. Mhm. waaw ba léegi dox ma parce que su may su may jàppoo. yë yëkkati ma mhm. waaw. ci laa dem village après sama papa yóbbu ma fi yaakaaroon ma dem kooku mocc def yu ne mais taxul affaire bi bàyyi. Mhm. trois mois léegi ci laa ne sama léegi papa comme yóbbu nga fi fi yaakaaroon fi nga yaakaaroon te kiiwul euh, te. ba tey ca nga bay moo xool hôpital hôpital bi mag yi nekk Dakar. Mhm. mu ah waaw fi toll de man moom jaaxle na parce que fi ma yaakaaroon comme demagul noonu. Mhm. kon da ngay jéem sa patron bi nga dem foofu. Mhm. ngeen xool hôpital bi mag yi daal ci laa woo Daouda sama patron bu dëkk Géejawaay. ki ma liggéeyal Géejawaay dëkk. waaw waaw léegi ma ko. man léegi yow est-ce que a ñëw jamono yi ma ne ko instant moom métti na moom pour moo ñëw moom xam naa du yomb. mu mm-hmm. léegi garawul baal ma woo euh, sama sama benn jigéen bu nekk foofu Yacine. Mm-hmm. mooy secrétaire kii bi mu woo ko mu ne ko waaw léegi dama la wutal rendez-vous le 21 novembre léegi man ma toog village bu le 21 novembre bu ñëw man ma ñëw. Mm-hmm. léegi bi ñëwee médecin bi consulté ne ma gis nañ ne yow sa yax bi dafa damoon. dafa fisir fissure quoi ma ne ko waaw mu ne mais wér na mais dañoo xam ne exactement ndax yax bi dellu na place am wala déet. Hmm, ci mocc yeeg yooyu wér na waaw waaw ci mocc waaw wér na. Mhm. mais yax bi delluwul place am. delluwul place am delluwul mhm. di wane tamit lu ci nekk rek am na lu koy xool. ndax tey jii peut-être moccu ay yooyu yëpp baax na. Euh, am na suñu maam nuñ ko doon defee boobu médecine gënul avancé te dañ ci daan am résultat mais dañoo toll foo xam ne. Hmm. Euh, lu ci nekk danga koy bàyyeek wàllam hôpital am na lu muy faj euh, faju olof am na lu muy faj daa mel ni tey jii rek nga am insuffisance rénale ñu ne la euh, dañ lay yóbbu ci garabu olof day xaw a yéeme day xaw a doy waar loolu tamit sensibilisation la boo xam ne dañ ci bàyyi nit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax tamit dina dina faral yenn saay dinay waral jàngoro fa mu waroon a saafaro da koy paase ba toll foo xam ne amaana day dem ba ëpp loxo day dem ba ëpp loxo waa léegi euh, mais nag soo gisee loolu dafa am lu mu ci doon ragal. Mhm. maanaam dafa doon ragal mu ànd ak yeneen quoi. mu ànd ak yeneen waaw leneen waaw. Mhm, mhm. waaw loolu ci ndax lu ci nekk ay aada da cee am. aussi aada da am dëgg la dëgg la. waaw ci lañ def noonu nag bi ma bi consulté pare euh, ñu def rajo bi mu ne euh, yax bi dafa dam mais gis nañ ni wër na quoi mais xam ndax dellu na palaasam. mais après da ngay dem ci secrétaire bi mu jox la beneen rendez ñu demaat mu joxaat ñu le 6 janvier. 2023 bi. 23 bi lañ la jox rendez-vous. waaw. Mhm. léegi léegi ma ñëw léegi ñu ne ma da nga def scanner ma dem def scanner mu xool euh, rajo bi mu ne li yow lii moo la téye. Mhm. yax bi moom moo delluwul place am. Mhm. damm bi wér na. waaw dam dam mais yax bi delluwul place am waaw mais yax bi delluwul place am. léegi nag mu ne da nga da koy opérer dañ lay opérer pour defal la fer. pour nga mën a dox. dëgg la léegi sama patron ne ko waaw léegi opération bi comme nu muy demee. kon euh, bi nga gaañoo euh, ndax damay gis yenn saa ñu gaañu ci chantier am ci blessure te la ñuy gis ña leen di ñu ngi ñi ñu doon liggéeyal waaye ci say kàddu du ma comprendre daa mel ni ñi nga doon liggéeyal bàyyiwul la. ñu koy waaw. maanaam ñi ngi ci doon waslu àq. waaw waaw waaw. dëgg la dëgg waaw. Mhm. parce que mooy sama patron bi ne wax dëkk fële. géejewaay rek. dëgg la parce que moom it maak moom presque ñoo yem. Mhm. ñaari ñaari bekk la ñaari bekk la moom tamit dafa defoon choc. waaw dafa defoon choc moom itam bu instant yii ñaari bekk lay doxal. mais tane na. waaw tane na mais mhm. moom itam bu tey comme opération bi mu a def moom la war a def. waaw. Mhm. daanaka kooku moom. moom mu tane daal parce que mu ngay gagné ay sànce mhm. mais man instant gagné ma ah, moom mi ngi ciy liggéey mi ngi ciy soox di ci liggéey dooguma la boole mais di loolu rek euh, dangay teg foofu sa baaraam laataa ñuy dellu si ci bi nga jógee village ñëw fii euh, pour continuer li nga xam ne rek euh, mooy fajub l'hôpital bi naka la demee dañuy dem xooli ki nga xam ne rek mooy Binta Seye di jigéen ci yow di xarit ci yow marché moo leen boole waaye yaakaar naa fi ne nii sa lépp la ba tax na ñu dem xool te témoignage am daal di soit léegi ci waxtaan bi ci place active bi boole moom wax dëgg yàlla li ñu dund ak moom métti na ndax bànneex la doon dund man jigéenam la nekk ak moom ci marché bi xamewuñu ko caaxaan xamewuñu ko dara daan dooleem lañ ko xame bu demee chantier def ferrailleram ba ngoon jot mu ñëw liggéey ci marché bi dem ni ko Seydina waxee rek. waaye affaire bii sant yi ndog dal ko ci tànkam bi lu metti nag ndax boole jaboot na benn doom la si yaayam jabaram nekk xale bu ndaw nekk jaboot lii ko dal nii buñ sañoon ñu dindi ko waaye nag yàlla mooy doxale noonu am am bi tolluwunu waaye yàlla seede na ne tey bu ma ko amoon du ak si fii ndax sama xol neexul ndax boole tudde na ma doom yàlla seede na ne doom maase moo nu boole tudde na ma doom doom bi sax màggal nee na ma may naa la ko sama dund ak sama fekke sama lépp jël naa doom ji may la ko jël si ko muy lu ma rafetlu samay mbokk rafetlu ko boole mënuma wax ci moom bu may wax ci moom sama rongañ dina tuuru ndax mbaaxam yaroom léppam waaye suñ doolee moo ko matewut metti man dama toog marché ba yàgg rek njool woo ma ne ma boole ankay boobu sama turandoo juddu na léegi bu ma toog marché ba yàgg boole kii njool moo ma woo ne ma boole dafa def soog tànk bi dafa dambu ma ne ko ay njool looy wax lii mu ne ma waaw yóbbu nañ ko principal fee Dantec fi may lii far ñu ma ne bu ma añee ba pare dem fa seeti ko ñu ne ma dem na dëkk ba pour ñu mocc ko loolu laa si am muy lu ma metti suur boobu dama jooy saaliw ne ma lu ma jooyloo dama xam li muy dund te jaboot boo toogee rek sa kër toog na ndax amoo doole dëkk kow nga yor sa njaboot yor sa famille yëpp boole seen famille yëpp moo leen yor du ay benn doom la bu góor ci kër ga man dem naa ba seen dëkk dem naa ba foofu xam nga benn doom bu góor yor sa famille yor say yaay yor say wujj yaay yor say ñëpp ah sa njaboot lii ndog mi dal day metti te dafa nekkoon ku jàmbaare ku jàmbaar liggéeykat joge sànci ñëw pile bu dindee soble mooy pile soble bu la piilalee macha allah ceeb bu yéegee da nga naan kii nan la mën a amee doole pour piile lii ni mu toll nii piile bu normal bu rafet macha allah lii dal ko affaire bi metti ma nag metti na ma ba sa kanam yàlla su ma amoon tey jii yàlla seede na ne dinaa ko di waaye nag sama xol jeex na daal ndax bëgg naa te aw ma ñuy ñaan yàlla yow mii nag yàlla jàppale leen ci lu liggéey bu rafet bi ngeen di def ndax lii ne nit nekk ci tolof tolof bu mel nii nga ñëw jàppale ko ci suur bu mu ko dalee nii bu ma ñëwee tiim ko man dama jooy seen dëkk bi ma ko seetee dem naa seeti ko da ko da ko dal ñu dem seen dëkk ma dem ba seen dëkk fekki ko fa ndax affaire bi métti na ma mënatuma woon toog te dem ma seen dëkk seeti boole ni mu toogee bi ma ñëwee bi ma gisee dañu bëreet jóg binta laa yow lu tax nga ñëw ma ne ko boole yow foo nekk dinaa la fekk ndax turu doom dafa foor diis li naan ku la tuddee doom rek ku la yóbbu ma defal na la lépp moo tax mu diis ci man suur boobu moom am naa lu ma métti sama xol te mënuma ko faj waaw ma dem gis yëpp situation jabaram nekk ku jàmbaare nag ku ko yëram ku ko tette du ne un du ne un loo ne te bu ma nee école bi sax xaar ma yóbbante gone saak mu ne ma déedéet jëndal naa leen lu boole ñëw ñebbe gerte amul lu mu dul andi kon nag affaire bi metti na ma mm-hmm. yàlla seedal may laase ñëpp xale la bëgg na liggéey xam na liggéey xam nga ko xamul liggéey waaye kii dafa tettewu ci liggéey bu nawet jotee mu dem naweti lépp mu ñëw bu noor bi jotee mu ñëw continuer waat ci liggéeyam may ñaan nag kenn ku ne ñëpp laa wax ku am rek loo ko mën a jàppalee te yàlla tax bam mu delluwaat ci situation yi nekkoon ñu di la ko ñaan ñun ñëpp ñëpp daal laay laa si appel ku am koo xamante ne rek man nga sa dërëm sa ñaar dërëm sa fukki dërëm loo ci def rek ñoo ngi lay ñaan ngir yàlla te yàlla tax ndax amuñu dooleem jàppale ko ci ñu mu mu delluwaat waaw atire nekk Grand Yoff ma jóob ndax xamante nañ ñoo nekk Grand Yoff ma jóob ñoom ñëpp waaw xalifa sàll ñun ñëpp waa Grand Yoff lan waaw ñoo koy ñaan ñu ñoom ma jóob Khalifa Sall ñoo ñëpp ndax ñun waa Grand Yoff lan te lii Grand Yoff la ko dalee ñoo koy ñaan Adama fay waaw Adama fay ñun ñëpp daal ñoo ngi leen di ñaan kenn ku nekk loo am sa doole nga ñëw dimbali ko te yàlla tax koy ñaan daal ñëpp bàyyiwuñu kenn Grand Yoff gépp nag lan wax même commerçant yi nekk Grand Yoff sax nga xam ne am nan te mën ko faj te yàlla tax ñoo xam ne mën nañ koo faj te yàlla tax ñu nekk ci marché bi ñun ñoo ngi lancé appel ñëpp bàyyiñu kenn ku ko mën a jël à sas te yàlla tax dimbali ko ci njabootam mu delluwaat ci liggéeyam mu gën a ndax xam nga ne ndaw nekk mënoo dara mënoo dem sa njaboot boo demee mënuloo leen dara métti na. jërëjëf euh, daw na yaram li ñu naan euh, doy na waar yenn saa yi nit boole nit suñu borom euh, boole leen bërëb. ngeen ànd mais ànd beeg xamante bi ci lu yomb lay doon mais bul xam ànd boobu ba fan la mën a yegg tey jii euh, mi ngi sant sëy kii sant seen bokkuñu dara bokkuñu dëkk bokkuñu dara marché moo leen boole waaye lu ko wokk tey jii xuri ko ba tey jii dafa tëj place ñëw toogaanu ko assisté ko ngir bëgg mu wér muy wane rek ne nit foo mën ci nekk ak lu mu mën ci nekk na nga rafetal ndax nag xame am na te xamoo xame lan la la ma mën a indil tey euh, sama yaram dafa daw boole euh, tey bi mu waxee muy sa jigéen lan nga ma mën a dolli ci li mu wax. waaw Binta de moom dafa baax rek. di wax mhm. di wax ci man lu baax. mais mhm. mbaax mi ci moom laa ko séntu. dëgg la waaw moom moo gën a baax foofu. Mhm. waaw parce que Binta ñu nga xamante ci diir bu gàtt fii marché. waaw euh, comme ni mu ko waxee comme ñoom ni ñu ko waxee damay xëy sànci ba wàcc. Euh, ma ñëw marché di fa dóor waar encore. dëgg la waaw pour yokk sama dépasse. Mhm. waaw mais mais après benn jour laa ko doon tooññi rek comme tam xarit des ay deux jours yooyu quoi. Mhm. waaw ma naan ko soxna si yow est ce que yow mën nga togg cere sax. mun mhm. ma bien sûr mun naa togg cere kay. mun ah yéen yéen waa Dakar mun leen togg cere tam xarit de. mun ma fekk da ngay lekk cere nga wax ma ma ne ko damay lekk cere. mun ma dinaa la indil cere tam xarit. ma ne ko maa ngi koy xaar. mais pour man moom day wax quoi. mais dama toog boo tourisme bi nii rek après après mu mu mu jël bool bi spécial indi indil ma ko jox ma ko. mais dama rus sax. waaw dama ko doon tooñ. mu ko mais dama quoi. ci laa ko jàppee nag après saa yu ma ñëwee dakaar danaa dem këram. may woo téléphone ma koy woo téléphone. waaw ba nii sama diggante Binta nii la jaare ma ñibbi village. mu may woo sama yaay ni ma kan moo lay woo ma ne ko kii sama jigéen bu baax la sama soxna tamit xam nga comme jigéen rek. Mhm. dafa fiir quoi. dëgg la waaw mu ne ma yow kan moo lay woo mu ne jigéen bu baax la. Mhm. mu ne est ma ne ko waaw bien sûr wóor na de te soobu yàlla di ngeen xamante. lañ ko jaarale. Mhm. léegi ma ma ma jox ko soxna si moo wax ak moom mais soxna si firiwul daal comme ça. waaw waaw waaw jigéen ak ak fiir waaw jigéen léegi ma dem ba sama doom jigéen ma ne Binta mënu ma ko fay. Mm-hmm. mu ne sama papa ak sama yaay ak soxna si sama doom jigéen bi Binta laa koy tudd. waaw boobu sax man maa ngi Dakar man dew ma sax. Mm-hmm. demoo ci tudd bi waaw demoo ci tudd bi sama papa laa mm-hmm. wone ko su ma di tudd. ngeen tuddee ko Binta. waaw bi ko ko yëgalee naka la demee. bi ko yëgalee yii keroog kay marché grave moom jaax na moom. ndeysaan maa ngi ñëw ñu mën ko nettali joon na fa jooyu métti waa Marseille yëpp jóg di ciblé wax dëgg yàlla mhm, mhm. waaw mais mhm. mais moom moom mën ma ko fay moom moom mention spéciale daal Binta moom bilaay wala ngeen dund ay moment yu neex lu ci mel ni mbégteeb tuddee doom waaye jamono ji ngeen di dund ay moment yu metti ndax foo nekk mu fekk la fa ngay euh, frère euh, tey jii mu taxawu la euh, bu sañoon nga wér lan ngay àddu ci situation bi nga xam ne yaa ngi ciy dund ak moom naka la lay xoolee ban bët waaw kii moom Euh, bëtu càmmiñ la may xoole bëtu rakk mm-hmm. ak di ma jàppale guddeeg bëccëg bela walay sooñaa su ma la waxee jamono yi sama doom yi ñu ngi jàng mm-hmm. mais moo leen di xottil di jox saak ñaari at yëpp moom moo koy def mm-hmm. boole te di leen jox xaalis di leen jox xaalis di ma jox xaalis man ñu sama yoon ma mujj moo ma jox saak jox ma xaalis xaalis bu takku nag mais mënuma ko lim dëgg la li ma defal ci baax daal man mënu ma ko lim. Mhm. ko ñaanal yàlla rek moom moo xam ne mu bëgg. danañ ko ñaanal eggale woon. Mhm. aussi comme sama nijaay yi ñu ma bokkal nekk ñi. dëgg la ñëpp. Mhm. wax dëgg yàlla aw ma seen pay euh, taxawu daal. dañ laa taxaw ñëpp si jàpp. Euh, ba tax na rek euh, dama lay bàyyi nga àddu fa nga tolloon. bi nga dellu see def scanner. waaw ñu ne la foog ñu opéré la. waaw ñu ne léegi sa patron laaj ci som bi. mu defar totalement bi muy sept cent cinquante mille. sept cent cinquante mille waaw sept cent cinquante mille. Mhm. léegi sama patron bi na ma léegi nañ dem ñu xool solution lu ñàkk yàlla baax na. Mhm. yàlla bari na sutura. dëgg la waaw léegi ñu ñib am na sama benn copain ferrailleur boo xam ne dañ doon ànd maak moom. Mhm. munoo pourtant man de am am na sama benn copain boo xam ne day def social mu ngi liggéey ci mairie mais bu ma tudd tur nag waaw. léegi mu gis ko waxtaan ak moom mu ne ko léegi soo demee papier yi la CTO jox da nga koy booleeg photocopie d'identité bi nga jox ma ko jox ma ko man dinaa ko déposé mm-hmm. ci laa def noonu jox ko papier yi moom mu dem déposé ko ñu toog daxaar nag ci la waa marché Grand Yoff ñoom itam jóg dajal seen seen seen som ñoom itam mm-hmm. def seen fulaak fayda jox ma ko mm-hmm. def ket waaw def ket waaw ñu ko tal ñoom ñëpp Mhm. waaw surtout sama jigéen boobu moo ko jiite woon Binta mhm. ñu jow jox ma ko ma jox ko sama patron léegi waa Cité woo joxaat ñu rendez-vous le le vingt quatre février mhm. waaw ñu dem biñ demee ñu defal ma analyse ne ma léegi yow da ngeen dem ngeen fay euh, fële euh, nu mu tuddee somme bi BPA waaw waaw fekk euh, sama patron kii sama xaritu na fa trois cent mille maanaam li ñu déposé mu muy trois cent mille ñu ñu faxase ko hôpital CTO. CTO waaw mu ne léegi da ngeen def ñu ñu jox leen rendez ñu dem ñu def analyse ba pare ñu ne léegi da nga dem ba le vingt le vingt quatre juillet nga ñëw ñu opéré la. Hmm. waaw man ma obligé ñibbi waat village. bi ma at bi jot nga ñëw. waaw ma dem village ba le vingt cinq ma ñëwee ñu ne ma léegi à partir de vingt deux heures bu lekkati bul naanati. Hmm. parce que da nga war a opéré suba. ma ma def noonu bi ñu xëyee le 26 bi ci laa dem ñu toog boo ay 10 heures yooyu ñu ne ma bolekat li yàlla dogal mooy tey moom doo mën a opéré lal amul. Hmm? waa ñu ne ma lal amul. mu ne ah ñu ne léegi waaw mu ne leen léegi nag ñu ne ma da dem ba le 8 août. nga ñëwaat oh. waaw. léegi ci laa def noonu ma ñibbiwaat village encore ba le 8 août ba le 7 ma ñëwaat euh, bi ma ñëwee. Euh, le huit ñu xëy ñëw ñu toog boo ay midi une heure ñu ne ma tey encore doo mën a opéré parce que ba tey lal amul. mu ñaari waaw ba tey lal amul. léegi dañ lay jox beneen date boo xam ne boobu moom doo ko passé. man mhm. leen ñu ne ma ñu xool seen calendrier ñu ne da nga dem ba le 31 octobre maanaam le 31 bi ñëw nii. Mhm. ci laa waroon dem. Mhm. léegi sam patron waxtaan ak euh, Yacine comme secrétaire boobu noonu. moo waxtaan ak mu ne dinaa la jàppale mu jéem laa wutal avant bon parce que date boobu dafa sori. dafa sori. ma man de su ngeen ba jàppale woon dina baax parce que après métti na trop baagante bi dem ñëw noonu. Mhm. dafa a métti nelaw. non non dinaa nelaw mais du mhm. Mhm. def noonu mu dem ba le 2 septembre léegi mu ne ko le 3 septembre ne ko mu le deux day def euh, analyse après la le le trois ñu opéré ko léegi man le deux ma ñëw def def kii bi def. Euh, analyse bi waaw def analyse bi ñu waaw mën na opéré suba suba dañ koy opéré. Mhm, waaw léegi ma demee ba ngoon ma léegi lal baa ngi nii yow ci ngay fanaan doo ñibbi. Mhm. ci laal bi la fanaan ba suba huit heures ñu ñëw ay huit heures yooyu ñu ne ma yow yaa boole ma ne waaw ñu ne yow yaa war a doon bolok ma ne waaw ñu ne sumeekul ma sumeeku ñu teg ma ci lal bi biñ poussé bu ñu bolok mhm. masoor bi ne leen taxaw leen ñu ñu ne ampile bi war a opéré boole dafa lakk ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne jógal nga sulal sa yére wala naka nga dundee loolu à chaque fois yaa ngi xalaat opération moo la siy génnee waaw mooy tax nga doxaat mhm. euh, pendant un yu manqué ngay jaabante lii moo tax lii moo tax lii moo tax lal amul ba war a dugg bloc ñu ne la maanaam dafa am lu lakk moment yooyu naka nga ko dundee en tant que jeune bu am yaakaar jógaat dox. bilaay noonu métti rek. métti rek mhm. mais ndogal yàlla aw ma ci pexe. Mhm. waaw comme comme comme comme ñoo ñoo ñoom ñooy faj. Mhm. loolu lañ ma wax mënu ma leen forcer. dëgg la waaw. mënuma def ak ñoom leneen. mais ndax amul ay moment yoo xam ne euh, métti na trop yow ci xaar bi moment yoo xam ne mën nga koo partager ak ñoom. non non tout le temps parce que maa xalaat ni may dox boo jóg. bu mun a mhm. liggéeyuwaat bu mun a teral samay parents. Mhm. sama njaboot. Mhm. parce que ma rek lañu am. dëgg la waaw tout le temps xale moom xamul papa am na tey amul suba. tout le temps laaj. waaw te wax dëgg yàlla ku am ñaari at yu manqué tuuti liggéeyoo moom yoratoo dara. su loolu ñi ñoo doon jàppale ni sax kon bu dee gën a ñaaw. dëgg noonu daal la dem. léegi nga daal di solaat sa yére. ma solaat sama yére jóg ñu ne médecin bi nee nga ñëw nga defaat rajo. mu mhm. jóg dem defaat rajo ñu jox ko ko mu ne rajo bi leerul delluwaatal ñu defaraat beneen rajo ma demaat ñu defar ko yeneen ñaar rajo ñu jox ko ko mu ne sa yax bi dafa lekk yax bi moo lekk mais il faut nga def opération xaw ma STC lañ ko wax xaw ma. Mhm. sama patron ne ko kooku prix bi ñaata la mu ne ko deux millions trois cent mille. kon fi ne cent mille mille moom messe bi loolu la wax sam bi xool ma mu ne mais euh, xaaral xaaral euh, da ko dund am ñu mu ko dundal euh, boobaak léegi dañoo jàpp bàyyiwuñu ku ci mel ni Seydina ñu dem seetaani ko léegi-léegi Seydina Diop moom mi nga xam ne requête bi ci moom la jógee ndax nag moo ñu sollicité pour ñu jël ko à chaque fois su ma rombee mu topp ma soña soña soña dimbal ma sama waa ji dimbali ma sama waa ji sonn ci lool lool lool lool lool ba indi loolu waral suñu teewaay fii tey jii ñu dem xool ko daal di soit léegi ci waxtaan ji ci seen émission 7 voix du cœur sur la 7 TV. Euh, boole nag muy suñu rakk di koo xam ne suñu dëkkandoo la ñu nekkoon ak moom ci marché bi mu nekk koo xam ne ku jàmbaar la woon ku nangoo daan dooleem day dem xëy dem ci chantier yi di liggéey. su ngoon jotee mu wàcc ñëw ci marché bi taqale pour dépasse am moom bu ngoon jotaan day ñëw foofu comme ça bu toogee ba ay 5 heures 6 yooyu bu ñëwee yenn yenn saa yi ñenn ñi di wàcc ay bagages mu bokk ci affaire yooyu xam nga loolu di yokk ci dépasse am daal. léegi nag li nga xamante ne moom li li ko dal ni mu ngi ko dalee ci bërëbu liggéey liggéeykaay muy fi mu doon liggéey ci affaire maçon ci la daanu bi mu daanoo nag tànk yi am problème. papaam nag bi mu ñëwee woon fekk ñu yóbbu ko setoo ñu ni principal lañ koy yóbbu comprendre nga léegi bi ñu ne principal lañ koy yóbbu papaam foofu rikkale ne da koy yóbbu ci dëkk ba xam nga nitu àll ba ak fii bokkul ne da koy yóbbu ci dëkk ba mais bi mu demee ba mu yàgg gisuñu ne loo xamante ne nekkul pour affaire ay garabu olof yooyu waa ay waaw ay mocc ci ay jang affaire yooyu noonu mais bi mu demee ba xam ne gisul ci loolu loo xamante ne lu jëm kër dafa wëññeekuwaat ak moom bi mu ñëwee ñu yóbbu ko CTO bi mu nekkee CTO nag entré na fa ay weer ñin ñi nga xam ne ñoo nekk moom nag ci marché bi ndaw see mën na ma seede mooy jigéenam dugg na ci biir marché bi defal nañ ko ay ket ak lu ne pour dajale parce que woon ay sept cent cinquante mille mais xaalis boobu yëpp mujj na ko def ci hôpital bi te amul changement ak ay ordonnance dégg nga léegi nag mu mujj nag comme bi biñ dem ba wane ne bañ wane ne wér na mais affaire yi ñu def ci tànkam yi yooyu noonu mu mujj comme ndakaaru toogaay bi neexul mu mujj delluwaat dëkk ba ba mu demee dëkk ba nag nekk fa programme rendez-vous bu ñu ko jox mu dagg paasam ñëwaat rendez bu mu ko jox mu dagg paasam ñëw parce que un ngi nii nag dem na sétuwa jaabante na bos na fu ñu ko joxee rendez-vous rek dina ñëw ba temps yi ci ginnaaw dañ ko waxoon na ko bu ñëwee dañuy def opération pour tànk bi mu dem ba jël bañ jëlal ko saal ñi dellu génnewaat ko na ko euh, principal ngay dem ci lañ ko jox nag ay facture ak yooyu ñu xool nag muy ndomboro xaalis boo xam ne moom amut ko ñun ñi nga xamante ne ñooy woon ay nitam wax dëgg yàlla su ko suñ doole mate woon amaana du yegg fii noonu la fa demee ñun nag liñ bëgg nekk na ndaw loo xamante ne yéenuwuñ ko muy tàllal ay loxom ndax xamut ko liggéey la xamoon daan dooleem wallaahi asim ku dekku ne ak sa baam yi liggéey rek la xamoon mais nag lii doomaa waaw bu ngoonee mu ñëw marché taqale fa continue ñibbi këram wala bu liggéey bu fa ñëw bu fa taqal dara sax toog kafre waxtaan affaire yooyu ñun nag ñun waa marché bi nag wax dëgg yàlla la nga xamante ne mën nañ ko ci moom amoon yéene ci moom mooy woon mu wér ba mel ne melaat woon loolu nag ci suñu borom coobare gi ci suñ borom la waaye am nañu yéen a ñin ku ñu ci jàppale moom ba mu delluwaat ca na melo fi ni yi ñuy indil ñi dañ ne deux millions xaw ma quarante huit mille xaw ma affaire yooyu moo koy faj waaw waaw moo koy faj te boole ay parents moom kese lañ am am na doomu bàyyi nag mais moom mën naa wax ne mooy woon ke waaw ci yaayam moom ci góor benn doom la ci njaboot gi mu yor njaboot ko sew moo leen yoraloon seen lépp am na soxna am na ay doom moo leen yoroon nag ci lépp nag ci lépp moo leen ko yor depuis nag ñaari at yi lii arrivé ko seen kër sax changement sax am na ci. li ma dund moom mooy nga nga bëgg a jog mënoo jog dem fa laan dem nga nga soxla euh, loo def sa poche mënoo ko wala sa waa kër la nga tàmmoon di leen ko dundale mënatoo ko xam nga loolu dafa métti day jékki-jékki di xalaat ci loolu ba mu yàgg ay rongoñam sax di wadd danaan maan man de. ma génn pour ma ndeke boo gisee doomu aadama yi ñenn ñi di génn di yëlwaan sax doo comprendre ma ne ko yi demee noonu yàlla bu ñu ci yegg ñin li ñuy ñaan dañuy ñaan tàllal ci ñu loxo pour ku ko dimbalee ku ñuy jàppale boole dellu ci activité yam nekkoon loolu daal la ñuy ñaan fi ne ne ordonnance bi ñu jox ko su fekkoon yoroon na ñun xaalis wax dëgg yàlla konoon moom du yegg ci fii jërëjëf kon nag ñoo ko gisandoo euh, muy tamit sa xarit Euh, bu ma gisee may mu day bàyyi li may jaay moo xam mu am client moo xam mu ñàkk am ay client day bàyyi lépp li muy def ñëw taxaw man waxtaan ak man jéem ma convaincre ci jël la euh, pour ñun ñu ñu jàppale la euh, ma bàyyi la rek nga àddu ci loolu. waaw waaw Seydina sama sama grand bu baax la. Mhm. moom itam yàgguñu ñoo xamante noonu sax. comme comme ni ma la wax ci bint it marché la xamante ne muy sama grand bu baax. Mhm. tout temps su ma wàccee ngoon ba ñëw marché. li may liggéey yëpp moom moom mooy xool moom mooy tëgg bët. dëgg mm-hmm. nga xam ne man oh, ku bëgg liggéey la jàmbaar waaw jàmbaar la quoi. Mm-hmm. waaw moom it mu may conseillé sooy sooy liggéey bul yàq waaw comme ni ngay def noonu la yow xale nga nangul liggéey fonk say parents euh, lépp daal maanaam lépp lu lu xam ci yoon bu baax daal. Mm-hmm. moom moom la may digal waaw dama ciy teg daal. waaw moom daal wax dëgg yàlla. moom itam wax dëgg mu nekk grand bu baax ci marché bi du man kese lay jàppale nag ñëpp lay jàppale dëgg la waaw mhm. ku mu lay jàppale dëgg la waaw di nit ku baax moom itam ñëpp xam ko mhm. waaw euh, tey jii euh, bi nga demaate nga ne après naka la demee bi ma demaatee hôpital ñu ne la deux millions ndax mën naa gis facture bi waaw facture bi facture am moo nekk nii moo nekk moo nekk nii waaw analyse deux millions vingt huit mille. waaw six cent quatre vingt quatre. lii mooy facture bi. mais bi bi principal la bokk bokk ak bu CTO bi. bii principal la. loolu la bu CTO bi mooy deux millions trois cent. trois cent ok mais bii nii bu bi mooy deux millions. Euh, gis ngeen somme bi mi ngi nii. gis ngeen frais yi niñ ko ko détaillé. vingt huit mille chirurgie beeg implant beeg yooyu yëpp mi ngi nii muy loo xam ne rek. Euh, doy na waar ndax nag 700000 euh, la doon laaj 700000 yi rendez-vous yi sori rendez yi lal amul euh, maanaam dispositif bi matul lépp loo xam ne war nañ ko ko defal pour opération bi matul yéex na manqué na patients yi ñi ngi toog di xaar moom tey jii kenn la ci waaye amaana am na keneen koo xam ne ma nga toog buntu CTO di xaar ñu opéré ko ma nga toog buntu Dantec nañ ñu dimbale ci wàllu santé bi nañ ñu dimbali ndax nag euh, doon na loo xam ne dooy na waa trop trop trop faju metti na euh, bu la dara dalee yow sa fit day dem ndax dangay xalaat ne yàlla buñ ma dugal ci lii yàlla bu ñu ma dugal ci euh, war a toog xaar rendez-vous toog xaar opération jëndum ordonnance boo ci duggee da ngay jeexal say mbokk jeexal te sax nag wër ba day xaw a doy waar ndax di nga wéram doo wér yàlla rek a xam ñu am yaakaar lool nag ndax nag ñu xarañ ñi ngi fii ci mim réew di faj euh, am lool lool lool lool lool Pastef si li ñuy liggéey ba tax na nag euh, li ñuy wax rek mooy nañ renforcer moyens yi ci côté santé ndax nag population bi sonn nañu trop trop trop euh, boole ma bàyyi la rek nga wax ñu bi li amee après ci nga demaat euh, CTO encore ñu joxaat la beneen facture 2 millions 300. waaw 2 millions 300. Mhm. léegi bi ñu waxal sama patron patron bi ne ma léegi kon dinañ dem suñ demee léegi dañuy jéem a xool solution comme comme ñuy def social. waaw ñu ñu ñu jéem a wéeru ñoom daal. Mm-hmm. parce que som boobu tamit say mbokk yoruñ ko yoroo ko. Mm-hmm. man mi damay taqale rek yoruma ko. te jéem nga jéem nga déposé ci yooyu wala boo ko déposé dooto amaat. dootoo amaat non non ci laa ñëw. Mm-hmm. ma wax rek sama copain ferrailleur boobu mu mu demaat ci waajur yi nga xam ne. moom moo ñu dugaloon trois cent mille yi foofu. léegi mu waxtaan ak moom mu ne ma léegi léegi da may jox dossier yi dossier yooyu. ma man de boosu waral la. Mhm. waaw man man lu ma ci mën dinaa ci jàpp. dëgg la waaw léegi sama patron bi tamit nee na. léegi xaalis ba nga jotoon a déposé pour opération bi c'était woon nag. non yooyu 300000 yi ñoom dañu koy jëlaat ñoom waa mairie. Mm-hmm. ñoom ñoo ko jëlaat mais cent cinquante yi nga xam ne cent soixante yi nga xam ne waa Marse ñoo ko dajal woon pour pour ma ko ah. mais boobu dinañ ko jël waa mairie comme opéré woo somme bi day dellu waaw day dellu mais ñàkkul nag boo déposé waatee waaw euh, bu génnaatee ñu jox la euh, somme bu ko ëpp waaw waaw mën na am waaw waaw dañ leen ciy lancé waale appel sonn na trop Euh, ku ko mun a dimbale nga dimbali ko sonn na ndaw la soxla na lool lool lool ndimbal dafa nekk koo xam ne kenn la ci ay waajuram euh, loolu administra administration la ndax nag euh, kayit xaalis buy génn rek day am lu koy justifier comme opéré woo c'est normal xaalis bi dellu foofu. waaye képp koo xam ne rek yaa ngi mairie yaa ngi euh, am nga connaissance ci boobu nag ñu ci dimbale boole seen la tudd sa tur dëgg noonu la ah. boole boole seen nga dimbale ñu ci dossier ndax nag fi mu ne nii opération am 700 et quelques mille la woon euh, yéeg na nag ba dem ba million trois 300 muy loo xam ne lu doy waar la euh, dafa daanu woon fële ca chantier am ci benn citerne d'eau ba mu daanoo nag fa mu daanu dafa amoon ay ciment ak li nga xam ne rek mooy. koy ban mu ratax lool mu daal di glisser ba écarter carrément glissement boobu nag moo def li nga xam ne rek mooy maanaam fracture euh, lan lañ koy waxee mooco ah. mooco ah moo damm euh, moo am fracture euh, te dafa dema dema dema dema dema dem ba ak yóbbu dëkk ba dem ci li nga xam ne rek mooy rendez-vous yi yooyu yëpp causé ay problème ndax dafa dem ba yax bi dafa lekku ba jeex fi ne dafa laaj chirurgie dafa laaj li nga xam ne rek mooy opération boo xam ne da koy valoir deux millions euh, trois cent kon boole euh, bi ñu la nee deux millions trois cent loo njëkk xalaat. non boobu moom wax dëgg yàlla. ndax mën nga ñëwaat ak ñun noo dundee loolu. waaw wax dëgg yàlla métti parce que xalaat naa ne man loolu moom xam nga ko mën a amee man moom décoration laa defoon bi wax loolu moom dama woon carrément damay bàyyi hôpital ma dem toog dëkk ba. topp nit ñi ñuul yi su ma wéree baax na su ma wéree tal ma xam ne lii la yàlla dogal. Mhm. loolu rek laa xalaat moom jamono mhm. mais sama jigéen bu baax yi ñoom Seydina. comme ñooñu ñoo ma toog li ma conseillé naan toppal hôpital toppal hôpital ñun waa marché dinañ man koo jéem liñ mun mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu dem a déposé social social waaw boo xam marché tamit ñu ngi leen di woo de ñu leen di woo de marché yëpp ñu leen di woo nag ndax nag marché jàmbaar la jàpp nañ ci indi nañ cent soixante mille waaye nag dama leen di woowaat ndax nag marché am na ci ñenn ñoo xam ne macha allah yal na yàlla xeeb doole cent cinquante mille buñ ko xëyee mun nañ ko nekkee duñ ko yëg macha allah yal na yàlla xeeb doole ñu kenn waaye nag euh, dafa doon loo xam ne tey jii yaakaar naa sama nijaay wax na ko léegi Euh, social dafa baax euh, julli ak woor ak euh, joxe asaga la ñuy wax ak yeneen ak yeneen yi nga mën képp ku mën a dimbali nit rek te du la gàllankoo ci dara danga ko war a def ñuy ñaan ñëpp ñëpp ñëpp te xam naa ne ay borom xol yu yaatu ñoo fa nekk ndax nag yenn saa yi nga gis ku yor place bu rëy jàppale koo xam ne place bu ndaw la yor ba mu yéeg ba grimpé ba yéeg a yéeg a yéeg ba amaana sax ñu tolloo euh, gis naa entente bi nga xam ne ci marché bi am na fi muy marché Grand ndax ñun daanaka ñun ci marché bi la ñu màggee ah, fii lañ juddoo fii la ñu yaroo ba tax na nag ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne rek suñu borom jàpp mën na la jàppale nga génnee benn somme jàppale ko ci def ko ci te xam ne danga ko def te yàlla tax da nga ko def te yàlla tax suñu borom mën na la ko fay wala mu fay la ko ci sa njaboot waaw ba tax na nag dañuy dem seetaani suñu nijaay bi euh, moom euh, Modou euh, Faye moom it nijaay la ci yow ñu dem xool ko laata ñuy tàggook yow boole. waaw jërëjëf léegi lay doon ñu dem xool ko daal leen si ci waxtaan bi. boole seen jërbaat la ci sama côté comme dañ ne xalaat daju suuf. fekkonte ni ak agoon na foo xamante ni war naa doon loo xamante ni lu ñu saytu la ñi siit naa waxe ak bintamee doon jigéenam jàpp naa ne gon du yég si fii ci yéen waaye nag boole doon nag koo xamante ni jàmbaar la yàlla suñu borom nag mooy tegge ba ko tegee natu bi mu doon as gor itam nangu ko waaye nag li gën a metit ci li nga xamante ni mooy programme mu bële bii daal mooy moom benn bant la ci yaayam ak papaam te tey fi mu toll nii papaam booy xool daanaka mag la mënatul lu bari boole boobu ba léegi xol bi lam mënoon lam daan mon nam ko daan mone yéene ji fi mu toll nii mu ngi bëgg waaye mënut waaye nag la tax ñu ñëw fii mooy am ci yéen yaakaar di gis itam seeni jéego ci biir dëkk bi ni ngeen ni ngeen di yaatale ndax boo gisee suñ daal suñu xel daal di daj fii mooy gis seen i jéego ci biir dëkk bi ak ni ngeen di li ngeen di saytoo ñu rafetlu ko ñu daal di ne ah yaakaar de moo yóbboon tan ma jolof ndax medd ma kon nag am nañ yaakaar ne ñiy saytu programme mu télévision bi nañ ci jéem xool boo xam ndax ñun dañ gis nañ seen taxawaa ci réew mi ni mu rafete non métti métti métti métti bi ko yàlla teg day mel ni man man la ko teg man su fekkoon ne doon na loo xamante nii man doon na sama loxo jet na ginaaw ba ma mënoon ko kon jàpp naa ne naga nii bale dem na ci ay item bu yàgg wala man maa xam li muy li muy li muy dund guddi yu ñu toll këram xam daan taxaw jàmbaar la woon gannaaw yàlla suñu boroom dara mosuta manqué ci ci ci këram dara mosu fa manqué waaye bu demee bu tey yàlla dogale nii rek ah jàmm bi pexe bur yàlla ak dogalam waaye nag mu mettilu ko ndax soxnaam si fi nii nag tey ci tey daanaka bu amul fii weer wala weesuur sax ndakaaru gii lay jaabante ndax bale fam mu taxawoon baayam mën a tudd dem yaayam mag la dégg kon soxnaam a ngi nii daanaka ndakaaru da koy jaabante xanaa ànd ak ngem yàlla rek waaye nag métti na xam nga jigéen moom li góor mën a dund mënu ko ndax xol bi day gaaw fees mu muy dunde neneen la say appel mooy maanaam euh, képp koo xamante ni gis nga taxawaay bi ak euh, fi ñu taxaw ñun ñëpp ndax àdduna moo demee ni jombul kenn képp koo xamante ni yàlla mën na lool mën lool na ko te nga am ci loo xamante ni sax yenn mën na cee jàpp te yàlla tax képp ku ko dégg rek nga mën cee jàpp te yàlla tax rek jërëjëf euh, kon nag euh, ñu ngi koy jaajëfal suñu nijaay euh, Modou Faye moom tamit nijaay la ci yow. waaw bi yëf yi amee ba léegi bàyyiwul. noonu moom tam bàyyiwul. Mhm. parce que ñoom ci seen néeg laa nekk sax. Mhm. wax dëgg yàlla dañuy xëy jox ma ma añee lu ma reere. Mhm. boobu léegi la saa yoo ñëwee Dakar rek ci ñoom ngay nekk saa yoo ñëwee Dakar ci ñoom lay nekk. waaw ma jox lal may tëdd di ma teete. di ma di la jàppale di la won yoon yàlla dina leen ko fay ku ci nekk rek da ngay jàpp ci ni nga mënee kii bu jàppee ci dooleem kii jàpp ci xalaatam kii jàpp ci yërmandeem sax yow mii di seetaan te amoo loo ko jox te am ci yërmande sax suñu borom dalay fay yoon kon nag hmm. euh, ñi ñuy seetaan ñu kenn kii jeune la dafa bëgg liggéey bëgg liggéey a tax bu xëyee daal di dem chantier wàcc ay 16 heures ay 16 heures ngay wàcc 16 heures 17 heures la muy def mooy day continuer marché directement ku xam liggéeyu chantier xam na dara yomb ci amul dara dara lu ci yomb jàmbaar góor dëgg dëgg dëgg moo koy def boo wàccee la nga war a def mooy sangu daal di rek euh, noppalu du ko def marché la jëm ca yenn ko dina yenn ba timis dina yenn ba 20 dina yenn ba 21 heures teewul suba mu xëyaat demaat chantier kon kooku waruñu ko seetaan muy yor beeki continuer waruñu ko seetaan muy tàllal loxo li ñu war li ñu ko mën a jàppalee rek mooy daal di koy jàppale faj ko mu daal di wér te xam ne jëmm ji bu wéree kenn du ko jox dépense moo koy jox boppam kenn du ko may kon nag euh, dañ lay bàyyi rek euh, nga daal di ñuy wax moment yi nga xam ne moo gën a métti dee bi lii amee naan nag moment yëpp dina métti mais ñàkkul moment yi nga xam ne moo ci gën a métti boole. waaw moment yi gën a métti mooy. Mhm. ban bés nga gën a fàttale ko bés boo xam ne saalit nga. mooy mooy euh, bi nawet bi dooree. Mhm. sa papa mu ngi ci 86 ans. 86 ans la sa papa. moom la am. Mhm. mais su bu ma njëkkee takk dem tool. boobu la boobu la sama adduna tukki billaay te njaboot bu sow laa yor mënaguñ dara te man mënu ma jàpp machine dëgg la waaw sama papa ci as boobu quatre-vingt-six ans waaw mhm. boobu laa gën a am li ma naqari ci àdduna jour boobu loo yëg métti rek métti mhm. boobu moom soñaa mënu ma ko wax kenn billaahi mhm. dama obligé ma jóg nekk ci naaj bi di dox di dox bu ma doog a mën toog ci ker gi parce que mënuma ko seetaan. naam liggéeyoo dara. moom liggéey da ngaa génn nekk ci naaj. mais ma dox bo ba naaj bi laal sama yaram yi. comme ni oh. waaw comme ni sama papa comme ni mu laal ma sinon man mënuma toog ci kër gi moom mu nekk ci naaj bi. Mm-hmm. billaay. sa ngoor may mënuma ko muñ wax na ma ko toogal li yàlla moo ko dogal ma ne ko nangu naa dogal yàlla la. yàlla ko dogal. waaw mais papa yow mënu ma la seetaan ngay takk ma si ne dem ci naaj bi man ma toog si kër gi damay nekk ci naaj bi boo ngay ñëw ma toog toog ci kër ñu toogal la ci kër ak say bekki. waaw ak samay bekki waaw. li mhm. laa ko jàppoo bu nawet bi wàcc. dëgg la kon nag dañ koy bàyyi rek mu daal di kon nag euh, di ñaan rek euh, képp koo xam ne rek euh, suñu borom dimbali na la nga daal di ko ci jàppale ndax nag sonn na trop soxla na li nga xam ne mooy ndimbal xelam jaxasoo na ndax nag njaboot la doon kenn koo xam ne rek moom benn la ci ay waajuram li mu wax dafa daw yaram dafa daw yaram dafa daw yaram dafa metti yow sa papa mi ngi am vingt 86 ans. nekk ci tool yi di liggéey munoo koo xool jaral la nga génn dem taxaw ci naaj bi naaj bi lakk sa yaram pour nga yëg moom li muy yëg yéene la suñu borom yàlla na la fay sa xol. kon nag euh, dama lay bàyyi rek nga daal di tàggoo laataan soxna naka la ak yow. waaw waaw waaw sama soxna su baax ku ma bëgg ku ma yërëm te mu ma. Mhm. waaw parce que soo xoolee jamono mamaayoo bu tey. moom mooy def su toogee ba ci yàgg mu ne ma baal ma dem Dakar su ma fa amee 15 jours ma mën a lijjanti a dépassé. Mhm. ma mu ñëw nekk Dakar lu mat 15 jours wala 11 jours yooyu rek mu ñëwaat parce que amul kooku toggal moom itam. Mhm. waaw tout à la yor koo xam ne day jàng comme comme la toll. su ñëwee Dakar su amee 15 jours mu ñibbisiwaat continué waat ci ci liggéeyu kër gi. su su dépasse bi demee ba jeex mu dellusiwaat. dellusiwaat bu fii daf waaw waaw day fóot. day fóot waaw day fóot. Mm-hmm. Mm-hmm. lu mat 15 jours mu furaatu am ay 40 mille wala 50 mille. mu daw mm-hmm. ñëw. su ñëw jënd ay diwlin ay kii yooyu noonu mais ceeb bi moom wax dëgg yàlla sama papa moo ñu def euh, su bi jeexee moom mu jënd saako ceeb teg. noonu lañ ko jàppoo. noonu ngeen ko jàppoo waaw sama soxna tamit wax dëgg yàlla soxna ku baax la waaw ku ma muñal la moom sonal ma ci dara daal. sonalu la ci dara kon instant bi yaa ngi ci lijjanteb 2 euh, millions 300 euh, yi nga mm-hmm. xam ne moo la war a opéré. pour mën a am yaakaar jóg dox. waaw waaw man daal ci loolu nekk. di mm-hmm. talal loxo ñëpp nag képp ku ma ci mën a jàppale su ma ci mën a jàppale te yàlla tax. ba mm-hmm. moom faju rek. mu delluwaat ci may activité. yaa ngi lancé appel Sénégal yëpp. ñi nekk bitim réew ñëpp bàyyiwoo kenn. ñëpp bàyyiwuma kenn monde bi yëpp maa ngi leen di. lancé appel. mu ci mën a jàppale rek te yàlla tax. ba jaww moom moom faju mhm, waa marché di wax ma bàyyi la nga jaajëfal leen ndax ñoom it ku ci nekk jàpp nga ci sa doole naam ñi ngi ñaan ñu gën a ñëw waaw waaw mhm. maa ngi ñaan ñoom it ñu ñëwaat daal mhm. wax dëgg yàlla mais nag maa ngi leen remercier man boobu léegi seetaanuñ ma wax la waaw mais maa ngi leen di waat daal ñu gën cee jàpp ñoom itam wax dëgg yàlla euh, la tàggatoo waaw xanaa leen nuyu bu baax di kontaan ci émission bi ngeen ñu defal nii waaw di leen jaajëfal di leen ñaanal yéen itam yokkute. amiin waaw euh, wax dëgg yàlla daal kontaan naa sama xol moo fay rek. Mhm. waaw mais maa lay remercier yow remercier Seydina ak Binta. Mhm. ak sëñ Modou. ak gars yu baax yi nga àndal yéen. Mhm. waaw maa leen di jaajëfal daal. jërëjëf waaw di kontaan ci bu baax a baax. jërëjëf euh, ñu ngi koy jaajëfal ñu nit di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal li nga xam ne rek moom la ko suñu borom teg yàlla na ko seppi nip dëkk mu doon loo xam ne rek souvenir lay doon ci moom ndax nag euh, ndaw la euh, bu ñemee liggéey ndax bi ñu dugg see loolu la ñu gis ci témoignage yi bu ñemee charge bu ñemee njaboot ndax lépp loo xam ne rek xam na ko mu ngi koy def waaye ndaw la bu bëgg wéyju te yaakaar naa bëgg wéyju rek jar na ñaan jar na ñu dimbali ko ndax tey ji yaakaar naa lu nit di defaat te defoo ko ci say waajur euh, perte nga euh, li mu wax léegi dafa dafa dafa doy waar dafa doy waar boo gëstoo boo ko xoolee dégluwaat ko dégluwaat ko day am fu sori fu mu lay yóbbu euh, ba tax na rek euh, ñu ngi koy ñaanal jàmm suñu borom yàlla nañ ko opéré mu jóg jàmm dellu ci ay activité am daal di dellu ci li mu nekkoon ndax nag euh, bu wéree rek kenn du ko yoreel dara gis ngeen yaa ngi nii facture yaa ngi nii lépp nag ndax li nga xam ne rek mooy daanu boobu moo ko teg dafa daanu ba ubbi ñaari tànk yi écarté ko ba mu sës ba mu laal suuf looloo waral euh, yaxu mocc bi daal di fell fell boobu ñu ko ci mocc di ko mocc di ko mocc ba mu dem ci opération bu 700000 opération mille boobu nag moo indi tey jii euh, opération deux millions et quelques li ko waral rendez-vous yu sori euh, système sanitaire bi ñëpp ko gisandoo nañ ñu ci jàppale. jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñi doon teewlu sur la 7TV seen émission 7 voix du di jéggalu bu wér a wér a wér di jéggalu bu wér euh, di jaajafal boole di ko ñaanal du courage jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp euh, di jaajafal sama caméraman yi ku ci mel ni Souleymane si ak euh, Mouhamed Papa ci wàllu cadrage bi jaajëfal bu baax a baax euh, production Papis Mbaye ak ñii ci ginnaawam yëpp waa montage mosuñu leen fàtte Lamine Mbengue ak ñii ci ginnaawam di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon teewlu ndax kiy wax ki koy seetaanam mooy dooleem ba tax na ñu ngi leen di wax fi amaani laa jàngeen jëf ba beneen numéro incha allah ci seen émission 7 voix du ñu ànd ak keneen ci li ci xolam.